Euh, fermeture des frontières par-ci par-là maintenant les foyers d'émigrés euh, ñi ci gën a sonn ci les sénégalais sont bloqués un peu partout pratiquement au Maroc vais insister sur le Maroc parce que euh, mangi ngi doon jokkante ak et avec te plus de 90 dans une situation d'extrême précarité en Mauritanie ak faneen ak faneen ci Nous bi euh, ñu soxla une assistance diplomatique et consulaire mais ce ba est muy tardé muy tardé euh, euh ma wax keneen dire que peut-être parce qu'en réalité euh, on me fait part des efforts que le consul du Maroc fait mm-hmm. Wow, il faut que nous reconnaissions. ko mais moi aussi mënul mënul joxe lu ñu ko joxul donc c'est à l'État du Sénégal euh, de diligenter hein euh, Mbirmi ci côté Maroc parce que ñoom ñu sonn nañu li dul li dul yoon hein, li jaaduwul mooy euh, nga tëb rek jël benn mesure ni néewu Sénégalais du fi dugg euh, loolu erreur la quel que soit nag néew bi li ko rey euh, man damay wax ni sax keroog maa ngi naan c'est une négation euh, post mortem du jus solis moom mooy même suñu néew yi sax dañ leen di dañ leen di nanguwul leen hein, dañ leen dindil le le droit du sol loolu c'est extrêmement grave loolu amul fenn Sénégal rek moo jël boobu mesure te je crois que le plus rapidement possible ñun dañ ci interpeller

maintenant il faudrait que mu am la volonté politique euh, pour que mu am une alternative pour que ñu ayons matuwaay yépp pour néew yooyu mën a ñëw ñu jébbal leen seeni mbokk suul leen ci anam bi nga xam moy anam bi gëna a parce que tay tukki dafa metti humiliation la man humiliation la ko parce que ji euh gouvernement Sénégal waroon na taxawee leneen lu di di humilier ay doomam yi bitim rew parce que euh gis nga le coût économique le coût social et le coût humain de cette maladie ñi perte nañ seen i ñi mëna mënatuñoo genn des familles sont séparées ñi perte nañ seen bakkan kon je crois que li ñu gënon soxla tay ku le dëfal mais pas ku yok seen nakar

nous euh, entamer un processus organisationnel de la diaspora pour nous ànd nek ben ba nga xamni ku fi ñëwati di ñu respecter. ndimbal euh, damay wax ce montant va créer plus de problèmes qu'il n'en résolve vous xolé tay diaspora bi est en ébullition euh, parce que ndimbal aussi c'est vrai euh, man dama koy rafetlu parce que am na ñu ko soxla mais gënoon na efficace su fekkon dañ ci waxtaan ak ak ñi ci wara waxtaanal so xolé tay tey euh, communiquer yi génn pour ñu xaaliss bobu ñu partager ko euh, dalul xel motax souvent je comprends amna ñuy wax ni soxla wu ñu xaalis bi mais damay wax ni sax ñun soxla nañ ko parce que bo jëlé exemple yi ma la wax ni rek soxla nañ ko amna ay neew tay yu nekk bitim rew néew yooyu war nañ leen mën a indi ci xaalis boobu sax euh, pour jébbal leen seen borom parce que mbir ku nekk danga koy nat sa mbir sa bopp mais seulement euh, xaalis bi am na sax ñu wax ni piège la pour diviser diaspora bi parce que loolu mu ngi bëgg a am parce que nag soo ma dee dimbali te te man li nga may dimbali waxtaanoo ci ak man euh, dafay mel ni kon leneen moo la tax a jóg malheureusement ci ci scénario boobu la ñu jëm moo tax ma ni nañu xoolaat Euh, j'exhorte l'État il y a une décision yi na ci waxtaan ak ñi ci parce que nous avons l'impression que c'est des décisions politiques Il dafa avoir l'ouverture d'une enquête internationale sur le coronavirus il faut que Chine jox nit des explications crédibles parce que mënoo xëy feebar bi jóge foofu nga xëy suba teel ni feebar bi dumóoyu na la nga xeyat subatel teel africain di len toroxal di len jiñ yene fi indi te yene yene indi ci adina kon je crois que il faut des mesures exceptionnelles contre la Chine le le le le l'ambassadeur chinois bi nek fi Sénégal dañ ko waroon convoqué parce que ñu ngi toroxal ay doomu sénégalais fofu mais euh, ñàkk fulla euh, les diplomaties les états africains ba nga xamni motax ñuy tek seeni doom euh, damay wax ni les les les les les les africains sont des cibles faciles parce que Afrique. Euh, dañu dañu dañu dañu jël dara euh, bu ko def euh, lo xamni par exemple je veux parler des états yi nga xamni fo foo leen fekk ñu ngi ñaan dimbal fo leen fekk ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñaan gis nga l'annulation d'une dette man je ne suis pas du tout d'accord gis nga Sénégal soxlaatul di leb damay wax ni la banque mondiale le Fonds monétaire international musu ñoo développer dëkk gis nga réew mi ñi koy développer mooy doomu réew mi il faut que nous nous bop euh euh la euh, euh, la grille de réflexion dafa wara un nekk pour un Sénégal post coronavirus il faut que nous bi ñu fexé ba euh, expertise gëm yalla ak pour ñu mëna tabax Sénégal